ñu lay dalal bés uh-huh. mm-hmm. di la dalal bés bi nga xam ne ñu ngi koy màggal mawlid bi uh, muy bés bu mag tey jii ci guddi uh, di beeg uh, mardi bi ñu bëggoon a xam imam tey lan moo waral ñuy màggal bés bi waaw li ñuy màggal dafa nekk loo xam ne lu màgg la uh-huh. lu ñu yàlla suñu boroom xéewalee uh-huh. mu juddug yonent bi ak ñëwug yonent bi ci ñun jullit yi mais yonent bi tamit dafa ñëw pour àddina bi yëpp pour àndil euh, ñu diine àndil ñu waxu yàlla muy alquran mhm. wan ñu nu ñu war a dundee muy sunnam mhm. wan ñu farata yàlla yi nga xam ne moom la wax ni ñuy jullee mhm. na ngeen saraxe na ngeen dem mag na ngeen nakk azaka na ngeen ci yu ñu ak yi mu ñu sant ñu war ko def loolu suñ ci nekkee ñu ci nekkee waruñu nekkaat ci leneen. Mhm. daf ñu andi pour defar suñu dund jubal suñu dund wan ñu yoon bi. Mhm. muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. guddi gi mu ñëwee àddina nag ganesi ko mu tombeek bésu tey bii. yàlla dafa mu nekk sax bésu altine comme ni mu ñëwoon àddina ci bis bi ci waxtu mu ko waroon defee mu ngi ko ci guddi. jëm fukki fan ak benn jëm fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu gi. nag ñu koy gàmmul. gàmmul mooy màggal màggal mooy delloo ci xel yi ndax nit dañuy commémorer toujours toujours benn événement mhm. pour di ko fàttali di ko jëfee di ko doxee di ko def di ko demee mhm. moo denc ci suñu diine mhm. ndax diine mooy ñuy gunge suñu àddina war ñu taxawal ëllëg suñu àllaaxira kon foog ñu def ci lu ñu mun pour nga xam ne suñu ji dund am njariñ waaw kooku nag moo tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mhm. muy doomu Abdullahi ibn Abdul Muttalib mhm. ak ku ñuy wax Aminata bint Wahabib ñoo ko jur mhm. amoon doom nag Fatima Zahra Zeynab bint Muhammad ak ñeneen euh, amoon na ay yeneen soxna tamit ñoom Maymuna ak ñoom xarit ak ñeneen ñi yëpp ñoom mënuñu leen lim dafay gudd mu gaañu nag ca ca Medine la deewee mais mu nga juddoo ca mag ñu denc ko ca Médine ci jàkk ju mag ji ba am doom bu verte bi mm-hmm. donc kooku mooy Seydina Mohamed mu ngi gaañu ci li ñuy wax euh, mu ngi tombé lu ñuy wax le 8 juin 632 ci ginnaaw Jésus Christ. imam te am ne biddaa bu mënul ñàkk la lan moo waral wax jooju. Euh, biddaa bu mënul ñàkk mooy moom ci boppam def na ko. Mm. célébré na boppam ci juddoom. Mm-hmm. ñun ñu ngi koy def. Mm-hmm. di ko defee sax ñeneen ñi dee nga xam ne léegi bu nit gaañoo sa yaay bu gaañoo da ngay jàpp date bi mu gaañu. Mm-hmm. nga ko ciy ñaanal. Mm-hmm. sa sët yeeg sa doom yeeg sa jarbaat yi jat ñu juddu te nekk ci àddina bi fii ñu ci ciy ñaanal. dëgg la kon commémoration boobu dafay delloo si nit ki ci nit ñi. dafay delloo si jëf yi ci nit ñi. bu dul mënuñu ko defal leneen lu dul dañ koy wàcceel kaamil zikral ko ñaanal ko. te loolu ci rone bi nañ ko royee bidaa bu baax la. bidaa bu baax mooy gis lu baax def ko roy ko te du am fo du am yàq mm-hmm. maanaam jàng alxuraan lay doon zikr ku gis nga fan yi yëpp télévision yi loolu la ñuy wane ñu koy burde mm-hmm. gis nga ne ñu ngi jàng di dellu si xol yi di raxas xol yi di defaraat xel yi pour nit ñi dellu si ci si diine ji mm-hmm. dañ ko dul mën a natt nii mais ñu bari ci semaine bi ngay gis nii delluwaat dañ ci yàlla suñu borom ndax nit dafay fàtte nit dafa dafa sàggan te nit dafa bëgg a fo ak lu neex yonente bi nag ci loolu la bokk am na ñoo xam ne ñu ngi koy yëgee ci seen xol. Mm-hmm. ci bu ñuy burd bu ñuy zik bu ñuy wasifa bu ñuy jàng xasaayit. Mm-hmm. bu ñuy bu ñuy bu donc nit moo dundee noonu kenn ku nekk ci nga nekk bu ko def rek nit ñi dañuy sànku te gis nga ne bisu tey bii. Mm-hmm. boo demee Kaolack démb ba ba bërka démb ba gàmm gi jeexee. lañ ko doon préparé ba gàmm gi ñëwaat. boo demee Touba màggal gi barke démb la jeex. Mhm. dañuy préparer waat màggal gi lu tolloog at ba màggal gi dellu sewaat. Mhm. donc ñun yooyu lañu ñu am muy bidaa yu baax yu neex gis nga yi ci am ak jëf yi ci nekk. Mhm. am na ñoo xam ne ci la ñuy dund dund gu neex boo fa demee coono fa am mais coono bu neex la it comme ni ngay aji je mag coono kese la mais coono bu neex la coono buñ la sant la coono boo war a def la kon boo liggéey wala nga gàmmu ji tamit coono bu neex nga cee jëlee am ci tuyaaba am ci yàlla. Mhm. kon imaam si dégg-dégg liñ ci digle moom mooy ay ay jàng ak delluwaat sa bopp ci yàlla. delluwaat sa bopp ci yàlla tout le temps nag. Mm. ndax nit dafay dafa réer. Mhm. nit dafa sàggan. Mhm. te nit dafa war a tout di fësalaat boppam di defaraat boppam di delloo si boppam. dëgg la te loolu dañu ko ba mu jeex. bul tooñ bul mer bul yàq bul xas bul saaga bul def lu bon bul def lu ñaaw. Mhm. boo demee foofu looloo fa am. leneen lu ci bokkul nag ku ko ci def tamit ay bàkkaar ngay am ndax foo nekkut. Mhm. ci lii. Mhm. amul benn yoon bu ñu ci waxee foo lekk bu suur naan bu suur sol lu set sol lu rafet koo gis ndokkeel ko koo gis bëgg ko koo gis yaara ko dem ci xabru yi dem ndax nit fi liggéey loolu wàcc fi dem. dem nañu mais seen i jëf def na def na si si mhm. seen jëf bu fi bu fi desee ñoom fiñ leen denc dañ leen di dem ziyaare ji mhm. ñaanal leen yàlla yàlla yóbbu leen aljana mhm. ñoom it ñu ñaanal ñu yàlla yàlla jàggal ñu ci àddina ñu leen di yàgg di leen ñaanal di leen wàcceel ay kaamil ak di leen defal ay sarax ak di leen defal di leen defal lu rafet lu baax lu ne ci loolu loo nekk kon nag amul dara lu ñaaw lu bon lu ci war a dugg moo tax mu nekk nag didaa bu rafet. imaam ñu daan baaxee gis ne euh, ñu bari dañuy wutali yenn diwaan yi muy euh, ay euh, ville religieuse yu ci mel ni Tiwaawan Kaolack mhm. Njaasaan bu dellu see semaine tey jii ndax ku nekk mën ngaa toog sa kër gàmmooy fa. waaw gàmmu moom ku nekk mën na ko defee fi mu ko yaakaaree ak fi mu ko bëggee ak na mu ko bëggee. mën ko defee këram. mën na ko defee mhm. ak njabootam. Mhm. mën na ko def ak quartier am mhm. mën nañ ko def ci dëkk ba mhm. am na mag ñu baax na ñoo xam ne dañ ci bind def ci dund ko wan ñu yoon bi tamit jàngal ñu yoon bi wan ñu kan mooy Seydina Mohamed mhm. lu mu doon ak lu ko fi lu ko fi andi diiru dundam am na ñu ko bind wàcce ñu ko mooy comme Haj Malik ñoom moom Baye Bass Baye Niass comme euh, Khadri comme Yoff ku nekk bind na ci Seydina Mohamed ndax moom rek moo ne moom la ñu yónni ci ñun mooy suñu référence donc fañ ko doon defee dañuy seet fu mu gën a rek boo demee Ndar fa la ñu jëkk a gàmmoon nit ñi yaa ngi fa di gàmm. Mhm. boo demee Kaolack tey kenn xaju fa boo demee Tivaouane it ñeneen a ngi gàmm foofu ci Tivaouane. Mhm. boo ñëwee fii ci Ndakaaru xëj na ñun sax ci Ndakaaru ñu ëpp ñuy dem ci ci dëkk yooyu ndax ci le ñu am daje fa ak ñeneen ñu jógee Kaolack ñu jógee Ndar ñu jógee Linguère ñu jógee Podor ñu jógee Matam ñu jógee feneen ñu daje fa màggal ko. Mhm. di gis fii ci Ndakaaru tamit. fu nekk fu nit yaakaaree daje fa ak nit rek dañu fay dem daje bogg màggal yonent bi ndax suñu diine moo ñu moo ñu yokkal loolu. Mhm. bénéfice bu ñu am la mu nekk occasion boo xam ne wala ni ko tubaab di wax opportunité. Mhm. du gaaw am. te li nga gis ne boo demee kër Thierno Seydou Nourou Tall fii. Mhm. képp kuy tugaloo dafay ñëw. xëy na chantier bi moo tax mais du tere ñu màggal ko ndax nañ ko doon defee dara du ci wàññeeku dara du ci deñ te boo demee Ndiassane noonu bu ñu màggalee bu ñu gàmmoo tey bu juróom-ñetti fan yi jotee dañuy ngénte boo demee Tiwaawoon dañuy gàmmu tey bu juróom-ñetti fan yi bari dañuy ngénte waat loolu sax jëlee nañ ko Sénégal yóbbu ko ba fu ñuy wax Fès fa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif tëdd. Mhm. di fa gàmmu tey Sénégalais yi dinañ fo toogaat ba juróom-ñetteelu fan bi ñu màggalaat ko mu ngénte li. Mhm. donc bidaa bu baax la boo xam ne jëlee nañ ko tey Sénégal yóbbu ko feneen. Mhm. tey boo demee Nigéria Euh, fayda bay ñas bi egg na fa ba nga xam ne ñëpp a koy màggal muy Niger Nigeria ba Ghana ba dëkk yi dëkk lëkkoon loolu yëpp te bay Niass jaaroon fa mhm. tey bis bu màgg la kon benn nitu Sénégal moo fa yóbbu loolu baaxee leen ko jàngal leen ko wan leen ko ñoom tamit ñu gën ñu ko sax bëgg faf du mhm. ñu ci ëpp du ñu ci rëppale nag mais ñooñu ba nga xam ne moo leen gënal ndax ki jógee Sénégal yóbbu ko ba foofu mhm. ñoom ñu koy màggalee foofu tey kenn xaju fa li fa di teraanga kenn mënu ko natt. li mm-hmm. fa def kenn mënu ko natt événement bu rëy la ci addina bi yëpp nag. Mm-hmm. boo demee tuuba gii ak Masalikul Jinaan bi kenn du fi xaj tey. Mm-hmm. teraanga teraanga yaa ngay ñëw yenn ci suba bo guddi. bu ñu guddee ñu màggal yonent bi tamit. kon nag loolu la xam ne li nga xam ne yàlla baaxee dañu ko gënee da mu nekk nga del ko ci ñun kon day bidaa boobu rëy na moo ñu wax ne wa ma anzalnaaka illa rahmatan lil aalamin hudan linnaas kaafatan ñëpp ci bokk tey même ñi ci bokkul ci suñu diine dinañu ci roy lu baax nga xam ne yonent bi lu baax rek la doon def ak la doon wax. bi yoon di ñaareelu édition bi nga xam ne dinañ ko amal ci jamonoy mbas tey ji mm-hmm. imam ban euh, appel nga ci def. waaw xam nga dafa am li ñuy wax responsabilité. Mm-hmm. responsabilité mooy tey gis nga ne jàngat nañu ci information yi ne màkk ibbi nañu ko. Mm-hmm. Euh, nit ñi niñ doon euh, dan moytunte ci julli ak sàppe yeeg yooyu dindi nañu ko mm-hmm. kon ñëpp mën nañu julli ji yaakaar nañu kon nag bu bu déwénee dina am aj mm-hmm. sëriñ bi nag li mu wax dëgg la feebar baa ngi fi ba tey mm-hmm. du mu jël lu mu jël décision personnelle moom rek ne bu fi kenn def lii déedéet dafa waxtaan ak collège yi ñu xam ne ñi ko bokk ñëpp nee nañu nag feebar bi yénewu fi de mu ne comme feebar bu jógegu fii nañ ko nañu nañu ko ubandi ba déwén hmm. ñu ci yàlla bàyyi ñu fekkee ko ñu def ko ñu def ko dañ ko daan defee hmm. léegi lu leen ngëneel la mooy mesure barrière sax bi gën a mëtale hmm. ku nekk des sa kër leneen li ñi ko xam ne nag jàpp nañu ne war nañu ko mun a def ñu respecté mesure barrière yi te def ko ngëneel la tamit ci ñëw ñu bañ ñu bañ a ub ndab li rek ñu ibbiwaat foofu ndab li tëjee ko fi ibbi ko fi ku demul fii rek dem fii ku ko mën a defee sa kër fii nga toog ku ko mën a dem defee fa nga ko daan defee nga dem defe ji ko mm-hmm. ndax am ci ngëneel ak tuyaaba ak yaakaar yi ci yaakaar ñu mu gën a raxas suñu suñuy xol gën ñu def ay nitu diine mm-hmm. te ñu gën a mën a sàmm suñu diine ndax lañ la fay jàngal yëpp lu baax lay doon lañ fay tere yëpp lu bon lay doon donc loolu lu nekk la loo xam ne yàlla suñu borom moñu ñu ko andil kon nag bis bi bisu màgg la tombe covid bi na ñi muñ ñu bàyyi ba déwén ñi nga xam ne ñoom jekku nañu pour def ko ren ñu bàyyi leen ñu def koy it dara nekku ci. Mm-hmm. mais nañu respecté mesure barrière yi nga xam ne moo koy accompagner rek. ci. kàddu jàngat yooyu le maanaam ci message yi justement ñu doon gis ne saa bu yi ni mel amee euh, dañ ci doon xaar message yu autorité religieuse yi tey yow ngay euh, leader d'opinion waaye it euh, di nitu dine ñu bëggoon am benn ban message ngay lancé ndaw yi ci surtout homme politique yi ci yi nga xam ne ca lañ jëm muy jongante élection yi. Sénégal day dund du yàgg ay élection yi ñuy wax légis communale euh, euh, communale jëm ci élection législative du yàgg moom it mm-hmm. donc ba ci élection présidentielle bi du yàgg moom it mm-hmm. loolu dafa nekk échéance boo xam ne day dëggal suñu engagement civique maanaam di dëggal aussi suñu euh, maturité politique maanaam suñu mët ci kii bi ñu wut ci nag li nga xam ne mooy xelu démocratie mm-hmm. ku nekk respecté sa morom te respecté yi ak li ñu ci wax te mais li ci gën a neex nag mooy ñu def euh, dafa nekk défi boo xam ne unité national la laaj mooy suñu dëkk bi ñëpp nekk benn. Mm-hmm. ci bëggante ak soppante ak téyante. Mm-hmm. ñun nag imaam yi dañu fonk suñu réew fonk suñu nation. Mm-hmm. ci seen i bànneex ak seen i naxar ci seen i métti métti ak seen i jafe-jafe. ñu ñaan suñu borom rek bu ñu eggee ci loolu ñu fexe ba lépp def ci jàmm nekk ci jàmm. ndax épreuve la boo xam ne rek day jàll mais Sénégal dafa war a des. ñu natt suñuy kàddu ci wax lu baax ci wax lu wax lu luy defar. Mm-hmm. dénkaane ci lu rafetal. Mm-hmm. kenn bañ a ŋàññe moromam kenn bañ a wax lu borom ayibu moromam. Mm-hmm. kenn bañ ci dugal baat ci bokkul ñu ñuy wax saaga ba ci réseaux sociaux yooyu yëpp ñu ngi ñëpp ñu nekk ci nii. ñu wax ne ñëpp nañu garder seen seen mët seen mëtu bopp am sax li ñu wax dignité et pacificité ci seen wax ak kaddu. ndax day am kàddu yoo xam ne bu génnee rek day yàq. surtout day jaxase. Mm-hmm. day yee seytaane yàlla suñu borom wax nañu ne seytaane ngi nelaw bu ko kenn yee bes bu ngeen ko nee ne fitna bés bu ngeen ko yeewee ngeen gëj a am jàmm. Mm-hmm. kon nag euh, bañ a andi fitna bu yàgg bu bees ak yëpp ci am. Mm-hmm. ndax fitna day andi lu nga xam ne réccu lay andi mën nañ ci sax jël bakkanu te loolu kenn kenn santuñu kenn mu jël bakkanu kenn. santuñu kenn mu dal kenn. tuñu kenn mu gaañ kenn kon nag ñu koy wax suñu dëkk euh, waa Sénégal yëpp. Mhm. di leen ci loolu ñu ñu respectante muñalante sàmbante téyante. Mhm. ci dëgg. Mhm. moo gën a wóor lépp kon nag ñu koy wax autorité yi di ko wax citoyen yi. di wax candidat yi di wax journaliste yi. di ko wax ñëpp ñu respecté loi yi ak institution yi. ndax Sénégal moo fi war a des bu intérêt yi jeexee mooy fal nañu wala woote nañu ba pare nu ñëpp delu ca la ñu nekkoon comme niñ ko tàmmee defee ndax Sénégal màgg na ci loolu. Mhm. dund ci loolu te ñu ngi ñuy tàgg ci loolu di ñu xaar ci loolu kon na buñ ko ayibal buñ ko tilimal nañu fexe ba loolu daal nekk loo xam ne nekk na te mu gën ci ñun ñëpp. mu des fi imaam ñu jeexaleek li nga xam ne mooy CONACOC commission bi nga xam ne bokk nga ci tey jii ñu gis ne euh, gestion bi maanaam coordination bi euh, am na ñoo ko bokkal euh, ñu doon xaar tabaski jeex korite jeex tamxarit tey jii seentu bésu gàmm gi fan lañ toll ci structuration bi. waaw loolu moom mu ngi ci suñu ginnaaw. Mm. parce que dañu ne woon ñun ñoo defoon concession ne ñu bàyyi ni ñuy oor ci jàmm. Mm. wari ci jàmm tabaski ci jàmm tamxarit ci jàmm. Mhm. at mi jeex na loolu passé na xëy na ñu ngi nekk jëm ci ay waxtaan mais li fi nekkoon a fi ne ñu ngi continuer kon ko mu ngi di liggéey ni mu doon liggéeyee. di mhm. saytu weer bi di joxe information yi ñëpp di ko am. Mhm. amatu ci xëccoo amatu ci coow amatu ci dara ni ko waroon defee di ko liggéeyee ne ñu ci. des na nag ñu waxtaanaat ci kanam bu yàgg jote jotee nañ ko def ñëpp yëg ko incha allah. Imam Oumar Diène ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di la wax déwénal. yàlla nañ ko fekkee jàmm incha allah.